allahumma salli ala sayyidina Muhammad subhaana rabbika leen yàlla bu musal ci feebar bi jàngoro ji choléra choléra daras bii yàlla na ci yàlla musal ci kàttu yàlla wala xam ne dara jëm xaqadiri subhaana rabbika wasa choléra bi laay sonal nañu moo nga defar Ndiaga. waaw mais. waaw. maa ngi si yoon de. yoon ba. yoon woo ko. wan yoon wan wan yoon. yow yow yaa ngi ñëw léegi léegi nii maa ngi ci yoon. d'accord papa feebar bi ñëwaat na de. ban feebar. soo ndox gi. Ndiaga eh. Ndiaga yow lan la. papa woratuma lan mu ma woratuma de worato njaga bàyyi sa tappale gi njaga doomu nit ku baax day woor koor yàlla gi dara pato laggewo lu leer nag laa la fii moom doo nekk ci kër gi te doo woor dégg nga li ma lay wax na nga bàyyi sa ngi ngay mbaj mbatti ji maa la gën yegg foofu papa maa ngi dem de jëmati feebar bu ñëw naa may dem may dem dem Jangan. su ma dee dinaa jooy sama yaay sama papa su ma dee dinaa i Dia kii moom aw ma gàllam bu ko bu ko mën a fay xam ma dee dinaa jooy su ma dee dinaa jooy sama yaay papa su dia dee dinaa jooy xaaral xaaral yow di nga jooy kay wala wala nga dee yow yow la dee rek moom dégg nga waaw dem ci kër Nggak boleh ini dua. Oke, kau hari ini juga. Baik juga, luar juga. Baik juga. Baik juga. Oke. Ah. Dia kayak kayak aku dengan dia kenal dia itu fufu gitu. Pokoknya macam fàtte naa sama kalpe ba xaaral ma ñëw sa kalpe ba laa fàtte saa fa xaaral ma ñëw. waaw dama expliqué mu dafa koo quoi quoi bi ah waxum ni eh bu fi nga xool dama expliqué xool waaw. bien la. waaw. waaye ba koo quoi eso te explico, Juan. Por los papulitos. 보좀 빠르게 좀 빠빠빠 기다려 봐. waaw xaaral ci digg la fexe. lan la xaaral waaw qu'est-ce qu'il y a. affaire la xaaral la xaaral dugalal ah a li ma wax. ni ah da ngaa woor. waaw am a dugal dugal dugal dugal. sama kër question yi day gaaw question yi. waaw dëgg la question yi na gaaw. fii sama kër waaye ak moom. yaa ngi dégg waaw bu ma la waxee génn di nga génn. bu baax bu baax bu baax bu baax bu baax. ah bu baax. dugal fatal bool bi fatal bool fatal bool fatal bool.